What's it look?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 seraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa jàngat bu yaatu bu journal ba jàngat ca MMA arts martiaux mixtes ñu gën koo xam ci MMA ko bëgg xam naka lay demeek ak naka lañ koy pratiquer ci Sénégal ak Europe ak Amérique ak yeneen i réew mi boo yëree sunu làmb da nga ko comprendre mbooleem ña koy pratiquer te dëkk ci réew mi boo yëree sunu làmb da nga leen xàmmee ña sunu làmb fësal ca xët wu njëkk wa mooy rëg-rëg Bombardier Rocky Balboa ak Siteu yi les combattants moom sénégalais yi ràññee nañ leen bu baax ku ci nekk ci ñoom fa nga tàmbaleeg nga yem ak lay sa parcours lépp journal bi fësal la ko mbooleem xeeti bëre yooyee te am ci réew mi yépp journal bi fësal la ko fa mu tàmbaleeg fa mu jaar ak naka la def ba dugg ci réew mi yépp fësal na ko waaye MMA bu Sénégal na mu juddoo journal ba xayma na ko le samedi mai moom la mu xamle mooy mu nga doon tàmbale boobee ca combat ba doon dox ca diggante Rocky Balboa ak Bombardier ca Arena de Genève boobee combat mooy njalbeen ba ca lépp tàmbale gannaaw ba lañ ca seen Siteu seen ca Reug ba mu ca duggee moom la Tarkinda ñu ngi ko testé le 4 ca Californie ka mu doon la tase Karl Culpeper daal koy won boppam ci ko duma duma yu metti def ñaari combat ñaari victoire bu dee rëg-rëg moom la décembre ci Dakar la dugg ci premier combat digganteem ak Sofiane bu kisu la woon mu won ko boppam jaar ci koom confirmation bi mu ngi ko amal le 22 janvier ca Singapour Alain la amoon moom la mujjee yéeg ci kollam daal koy kaawo ñooñee ñooy combattant yi nga xam ne ñoo fekk baax ci réew mi di yëngu ci MMA te fa ko Bombardier jàpp ko fa nanu xam ne amul xaalis mbooleem ñiy pratiquer MMA te ciy gañe xaalis bu bari boo ko xayma un pour cent la maanaam téeméer boo jël kenn nit moo cay gañe xaalis bu bari UFC bii may pratiquer benn kaaw rek mën nga cee gañe cinquante mille dollars loolee boo ko xaymaa ci CFA mu ngi toll ci vingt sept millions deux cent cinquante cinq mille francs te bile sport boo nekkee débutant yi doog a yegg si nekk wàcc bu bees mën nga cee gañe lu ci toll ci dix mille dollars ci amul xaalis te boo ci fa séenee nekk a dee faaw ko doon champion bu dee ka yore MMA bu France ñu gën koo xam ci Bertrand Amusu la mu dëggal mooy kàddu ya Juan moom la mu fësal ca journal ba mooy rëg-rëg ak Bombardier ay débutant lañu ba ñu ko laajee ci diggante Bombardier ak rëg-rëg kan moo raw ci MMA la mu xamle mooy ñoom ñaar ñëpp ay débutant lañu rax ca doole ne MMA sport bu professionnel la waaye UFC moo ko gën professionnel moo ko ëpp xaalis bu nu dellu see ci sunum réew ci sunu làmb dañuy ñokkali ba impossible la dañoo bëgg ñu xam ne lamb ak huis clos du ñu jaaroo taal peut-être yeneen sport yi mën nañoo am huis waaye lamb bokk ca lamb dafa am ay réalité loolee mooy seeni kàddu fa nuy jeexale mooy beneen jàngat ba journal ba def ca lacrosse goneeg Fass gi mbay géyeeg Tafa géyeeg ñeneen ña nekk ca Fass wekkoon seen yaakaar ci moom la journal bi xëy fësal wax fa mu tàmbaleeg ndam ya mu fa def gàllankoor yi ko dab ci lamb wax ci palmarès a xam ci yi li moo nekkoon li gën a fës boo seetloo lamb ki di lu ne mas na feesu waaye bii combat li ma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 jaay ci wàllu auto location ñoo ci teg loxo mu fas yéene ci ànd ak ñu ci mel ni wasaare lamb Lutte TV fm di Télé Futurs ma ne mbokki Gambie bés ba ngokk jamaykee dikkati na te saa yu dikkee xoli sedd on dit tattin février yi ci miliers say jëm bu bakkaaw ma ne bés ba ngokk bu ngeen xoolee yéen Gambiens yi ba Sénégalais yi fees est jëm bi seen affaire la